mujjug jamono lañ nekk ku doyluwul mhm. tey yow fëkk da lay yóbbu di tëdd guddi mhm. yàlla won acte bu nekkee dañ koo jël muy lu bees nañ ko teg mhm. ndax jigéen sonn na di wut doom fekk te yow am na leen ci du leen indi benn problème mais da leen di tëj fi doom war a sosoo du fa sosoo kon nañ leen bàyyi xel bu baax ci moy gi ndax mm. adduna bi moom xaw naa ya ba tax na Bécaye mm. liggéey na ci làmb loo xamante ni histoire làmb ci la bokk Mm-hmm. bi ñu indee peel bi ñu gasee bi ñu sulee fekk nañ fa ginaar bu doon dund ñu tëj ko ci siwo zadida yi yàlla rek mën ne naa la damay seet ci pettaaw yi di mm-hmm. seet si suuf si di seet si ndox mi mm-hmm. téléphone bii ma yor sax dama ciy xool d'accord di ci wax lu dul deñ jërëjëf mbokk yi allo Sénégal yéen ñi ngeen xam ni yéen a ngi seetaan suñu sit ak suñu information gis ngeen dañuy wax léegi rek ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waaye juru maam góor jasaaka moo génn léegi àdduna li ngeen jàll nañ information bi léegi pour yéen ñi ngeen xam ni yëgagu leen ko ñu ngi koy jàllawaat maam góor jasaaka bu baax baax di ñaan yàlla si borom yaayam yàlla na xippee ji àjjana alors eh, da ngeen di faral di gis ñuy dugal ci wàllu actualité wàllu borom xam-xam ñi nga xam ni dañuy faral di yëngu ci wàllum ñaan yàlla suñu borom kii nag ñu indi tey bokk na ci koo xam ni bëri na lu muy liggéey ci réew mi te nit ñi xamuñu ko wala ñu ko xam it nekkuñu fii bëri na it lu muy def ci réew mi loo xam ni ñi ñaa ngi ciy teg seen bët wax dëgg yàlla ñu naan ko borom sarax yi ñu naan ko soxna Ndey Jaata am na ñu koy wooyee soxna Ndey Bébé euh, wax dëgg yàlla muy yëngu ci luy jëm ci wàllum ñaan yàlla si borom mooy lii ñu fekkee nii këram ñu fas yéene waxtaanam ci wàllu actualité waaye jigéen la yaay la jur la. yor na waajur it donc mu yor doom alors tey am na lu xew ci réew mi loo xam ni ca mbuur la xewee image yaa ngi tas ci dëkk bi mooy li nga image yooyu ngeen di seen ay nit ñoo xam ni ay booy xool seen waajur ay ñu baax la ñu doon waaye tey ña ngay exposé seen bopp di léegi maanaam li ñu doon nëbb ci biir nekk moom la ñuy jël léegi di ko fësal kenn xamatul bañ moom la ñu nekk moom dina ci lancer message am en tant que jigéen beneen bi ci topp nag mooy kilifa wax dëgg yàlla boo nekkee ci dara dem ba sa doom di ko def wax dëgg war nga bàyyi ŋàññ maanaam muy ki nga xam ni moom mooy Gaston Mbengue ak El Hadj mbay Mbaye am na lu mu liggéey Gaston am na lu mu liggéey ci làmb ji ku jur makkan jur Modou Mbaye yaakaar naa waratoo dugg ci ay détails donc nag soxna Ndeye ñu fas yéene waxtaan wi ci wàllu xam-xam rawatina nag da ngeen daan gis ay jigéen di déclarer wala nit di déclarer lu jëm ci wàllu jaaro mais moom mooy wane tey li nga xam ne mooy lu wér jaaro bi wér boo xam ni mooy mbir mi ak wàllu càngat yi donc euh, donc du ñu bàyyi lu lul bàyyi lu nga nuyoog ñu lay seetaan ñu soog a ñëw nag par rapport ak li nga xam ni moo xew. waaw ñuy wax auzu Ah, ñuy nuyu kilifa diine yi di nuyu kilifa aada yi di nuyu Mawlana Cheikh al Islam sama sang bi maa ngi koy maa ngi koy sant di ko gërëm di ziar sama sang Baye Idrissa Touré. Mm-hmm. yal na yàlla yokk xam-xam bi yokk leer gi. Mm-hmm. Ah, di ziar ñëpp di ziar waa Sénégal di ziar sama cliente yi nekk international ak national bi yëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar. Mm-hmm. aywa jërëjëf soxna Ndeye euh, balaa ñu ñëw nag ci xam-xam bi ak noo toogee lan ngay jaale waa réew mi ki nga xam ne mooy Mame Gor Diazaka perte na waajuram léegi la ñu lancé jot message bi lancé ko. waa ñuy wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñàkk dafa metti mhm. surtout ma waajur dafa foor ci doom. Mhm. Ah, te yàlla nag bu soxlaa ñëppay ñàkk. Mhm. yal na ko yàlla may xolum muñ. yàlla bàyyi ko mu yeggaleeg sagoom ndax da ndaw. yal ko yàlla. oyofal yen wi mm-hmm. ci moo xam ne ñu ngi koy masawu daal di bokk ak moom naqar wi mm-hmm. waaw ndax Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar dëgg na mm-hmm. aywa eh, wax dëgg yàlla waajur nga comme li ñu wax léegi rek actualité bi xew avant ñi ñëw ci jaar jaar yi ak nonoo gi eh, gis nga de kenn xamatul ban monde la ñu nekk léegi mooy li ñuy ubbee léegi li xew mbuur léegi sax nit ki amaan na li ñu daan nëbb ci biir néeg euh, te donte ni lew na la mm. waxoon euh, moom la ñuy jël léegi di ko fësal te lewul euh, ay xale yu jigéen yoo xam ne am nañu ay waajur toog ji asaaloo seen bopp bay filmer seen bopp waaw dëgg la euh, di wax ni loolu moom wax dëgg yàlla yàlla da ko waxoon sax ci alxuraan mu jug jamono lañ nekk. Mhm. ñu ngi ci aaxirul zamaan fi mu toll nii. Mhm. ku doyluwul. Mhm. tey yow fëkk da yóbbu. waaye nag jigéen suñu borom da koo mooñaale ak sutura. ku ne xam na ne sutura ci la lépp xaj. moo tax yàlla defar bëccëg defar guddi. yal na yàlla gën a ñaax xale yi rek. di leen wax ni leen daal euh, loolu acte bu nekkee dañ koo jël muy lu bees nañ ko teg. te mm-hmm. xam ne jigéen day jur doom te doom mm-hmm. dafay màgg ëllëg te woy wodul fay la yàlla na leen suñu borom soppi raxas seeni xel raxas seeni xol ba ñu mën a changer mm-hmm. ndax nag changé jot na soppeeku jot na fi mu ne nii moom àdduna bi dara desatu fi. d' accord bu ñu leen xool yéen en tant que jigéen si ñu leen yaree par rapport ak ñoom ci moment bi ñu toll nii. Mm. yéen a ngi wax bu ñuy xool sax ñoom seeni waajur ñu jub lañu waaye léegi wax nga ni doom ji waajur ku def lii war nga sóoraale sa doom ëllëg ni sa ndey moo fi defoon lii. dëgg la. Mm. waaw xam nga yaru démb yi ak yaru tay yi rek. Mhm. xale yi fi mu ne nii dañoo màgg nouvelle technologie bi lañ koy wax. Mhm. internet beeg yooyu. Mhm. waaw ñoom daal roy nañ daal ba dàq. bu doon sama sago la. ñu jéem a arriéraat te seetaan li fi ñoom maam bàyyi woon. ndax jigéeni démb yi dañ daan wodd. waaw takk seeni sër. terewul nag du du la teree am jom. nañu set ci eh, waa Talaatay Ndeer. ñu seet ci Aline yi jaata mhm. borom histoire yooyu pour pourquoi pa loolu mun naan mun na amaat ci réew mi mhm. nañu góorlu rek nañu mhm. góorlu rek te xam ni daal àdduna bi dara dara yàggul daal dara yaagul te lépp si nettali lay mujj waaye na rafet. d'accord maanaam fi ñuy waxee mooy euh, ci baatu Allô Sénégal mooy li ñu jël nañ ko teg ci suuf parce que dox dëgg yàlla monde bi ñu nekk euh, kenn xamatul ban monde lañ nekk. mais alors dañuy ñëw ci nag li nga xam ni moom mooy temps fort yi nga xam ni yaa ngi ko waxee woon ci beneen barab avant ñu ñëw ci xam-xam bi pour ñi la xam wax dëgg yàlla li la yàlla doon wan nga doon liggéey ci kaan bi mu jàll Sénégal amaat qualification dóor jàll nga ni marché bi dina metti mais dinañ jàll joxe ci ay tegtal suuf nee nga ñu am na ci yenn ci taalibe yi ñoo xam ni wax dëgg yàlla woo nañ la def li nga wax yow it am na loo doon def yi yàlla def na ci jàmm pour ñu xam mën nañ dem xoole fu mel ni seen bës la nga waxoon ci avant marché bi dafa mel ni loolu moo mujj am. waaw ñuy santaat yàlla beneen yoon bu baax. Hmm. di wax ni waxoon nañ ko ci seen buzz. Mhm. suñu borom nag mooy maye. Mhm. yàlla def na ndam li am na. Mhm. waaye na ma ko waxee woon match bi metti woon na torop. waaye sant nañ bu baax a baax. ndax kenn mënul yàlla rek a mën. waaw fii ku fi xool ba di fi gis rek suñu borom moo jàpp si say mbagg. kon sant nañ yàlla bu baax duñ ko ndamoo duñ ko tiitaroo. yal na yàlla def jàmm rek. waa am na liggéey yu ma defoon. waaye it amoon na ay sarax yu ma génnee ci biir kër gi waaye am na ñoo ma digle woon def nañ ko ba woo nañ ma téléphone. d' accord loolu ñu ciy sant bu baax a baax. d' bala avant ñu ñëw ci jàll Qatar bi. Mm. Euh, ci kaan bi am na ci lu bëri loo xam ne yaa ngi ko doon def doon jokkoog sax ñenn ci ñu nekkoon douzième gaynde ñoo xam ne say dëkkandoo lañu nga leen doon jox ay sarax ay tekkal mu mel ni wàllum sa affaire la da koo mën. waaw dama da nga xam ay saraxam. dëgg la. Mm. mbirum football bi. Mm. waaw yàlla suñu borom may nañu ci ak mbirum làmb ji. dëgg la waaw. ndax ku ne. Euh, yàgg nañoo jëflanteel ay nit. Mhm. waaw football moom suñuy mbir la. Mhm. nawetaan bi it xam nañ ci dara. dëgg la waaw suñu mbiru làmb yit suñu borom may nañu ci ndax dañuy tëdd guddi. Mhm. yàlla wan nañu ci mbër ma lay wax rek benn anecdote fii parcelle am na mbër. bi ma tëddee suñu borom may ma ma gis ko unité 20 bii ma dëkk. ñu ne ma kat moo ngi bëree waaye dañ koy daan. ñëwul ci man bi ma demee xam naa xale yi ak seen tàngaay yaram rek. ma ne dama koy seet ñu ne ma doo dugg ma wax leen ne leen liñ ko def ñu ngi ko def ci buntu kër gi mu nekk kër gi muy génnee fa lañ ko def ci wetu foos bi te day daanu waaw ah, day daanu kooku moom suñ borom may na ma ci mbirum sport daal sa yëf la mbirum sport daal mais dañu gis ni ku ci mel ni soxna Ndeye maanaam de lim ciy gis ci ay sarax ci wàllu football avant ñuy ñëw eh, ci nga doon joxe ay victoire ci match bi ci kan bi. Mm. Eh, te booba sax nanguloo feeñ lu ku ñëw nga dàq ko ci moment boobu noonu dafa da ngay toog ba guddi ñu am luñ la won wala comme ni ngay gisee ci wàllu làmb ji defetu nit ki wala victoire am. waaw victoire bi moom. Mm-hmm. bu denkee match la. Mm-hmm. wala bu nekkee làmb la des fois da ngay tëdd ñu won la. Mm-hmm. defet bi. won la lu leer waaye bu nekkee match la. mun nga tëdd ñu won la. waaye mun nga mun naa ko xool ci sama téléphone bi. Mm-hmm. waaw waaye nag eh, yàlla rek man ne naa la damay seet ci pettaaw yi. di mm. seet si suuf si di seet si ndox mi. Mm-hmm. téléphone bii may yor sax dama ciy xool. d'accord di ci wax lu dul dañ. d'accord eh, léegi avant CAN bi léegi avant coupe d'Afrique bi euh, coupe du monde bi kon maanaam ci à part seet gi euh, des fois comme seeni bagage ci seeni rawaan ci ndono gi dangay toog rek guddi buñ la wanee dara boo yeewoo da nga koy gis. dama koy gis loolu la yàlla dogal ne naa la mënuma dara. Hmm. balaa ñu ma doon jox lii xaw ma woon sax lu lu lu seet di wax ndax kenn joxu kenn waxuma woon waaye biñ ma ko joxee moom ñu ngi may teg ci yoon te bi mu jotee génn naa. d'accord bañ naa ba sonn sax. dëgg la. Ah. Euh, jot bi danañ ci ñëw ci date bi bala ñuy tëj émission bi. Mm-hmm. Euh, ci âge bi parce que wax na ni ne ci ay message yu mu yàgg annoncé dafa ni ñaan dafa am âge amoo droit am yenn at yi di génn naa da faj. Mm-hmm. loolu moom ku xam wàllu ndono léegi ci di dem coupe du monde wala soit. waa buñ ma woowee. Mm-hmm. buñ ma woowee dinaa dem. waaye waaye buñ ma woowul nag. patriote laa. mun naa jàppale it sama réew toog fii génne ci sarax yi ma ci mën a génne rek. waaye buñ ma wooyee. di nga dem di ci liggéey. waaw ah, dinaa dem dinaa ci liggéey bu baax a baax te dinañ ci gis résultat incha allah. loolu sa yëf la. waaw sama yëf la. Hmm. sama yëf la. Mhm. d' accord ok léegi nag dañuy ñëw ci ndonool yi euh, parce que nag wax dëgg yàlla euh, pour ñu la yàgg xam wala ñoo xam ni euh, daaw ñu la gis ci région yi. Hmm. et yàlla am na lu mu la dénk lool ñu naan c'est Aline Sitoé jaata mooy sa maam ci ndonoo gi. seede yàlla suñu borom. donc ndono gi nan la ñëwee ci yow ci bagage yi parce que léegi dafa commencé bari. ndono gi nan la ñëwee ci yow. dëgg la nee la man. Mm-hmm. si côté yaay si côté papa yëpp. Mm-hmm. sama maam yi yépp mm-hmm. ay boroomi xam-xam lañ. dama ko nàmp. doonu ko ci ndey doonu ko ci baay. waaw looloo tax des fois ma tàng lool. dama dama lay wax dat wax la lu du deñ su ma la appeler tey jii du deñ sunu borom nag defaluma ko dara dama di jaamam bu xeebu. xëy na nag mu tànn ma ci biir jaamam yi loolu moom ma di ko sant yàlla suñu borom nee naa la kenn mënu yàlla rek a mën. Mm. ndono bi biñ ma koy jox ay 2010 la woon boobu ma dama voyage di dem di ñëw mais biñ ma ko joxee dama koo téye te ko dugal ko ci taatu valise bi. bi ma ko dugalee ci taatu valise bi am na benn jour ma wax la benn anecdote dañu taseeg benn tubaab boo xamante ne buuru Maroc bi dafa taw day tawat sax ba léegi day tawat ndax day jékki yaram bi di neewi. Mm. ñu tase fa benn tubaab bu ko doon traité sama xarit bi ne ma eh, nday ma ne ko ah, mu ne ma xaar ma woo sama xarit bi waa ji nag dafa am xam-xam moom tubaab bi mu ne ko viens je vais regarder les pour toi ñëwal ma seetal la hmm. tubaab bi ne ko ma xool say loxo tubaab bi xool ñaar loxo yi ne ko kii salal la mu ne ko kii sama seex la mu ne ko wax ko mu tàllal loxo mi ma tàllal mu ne ko yow doo seet kii mooy seet ne ko moom am na ay pétaw am na ay bagages na la ko wax. Hmm. mu laaj ma ma ne ko waaw am naa mu ne ma boobu ba tey génne woo ko ma ne ko déedéet. balaa boobu it am na yeneen anecdote parce que ay 2004 am na kilifa gu mag gu ma jàkkaarloo mu ne ma seet kan ngay doon. Hmm. jox ma ay pétaw ma ne ko xaw ma ci dara mu ne ma nag da ngay seet. waxal ma ne ko mënumaa wax xaw ma dara ci seet. moo tax mën na la yàlla mooy maye. d'accord bi app bi jotee bi ma génnee samay bagage d'accord ok léegi ci app bu jot boobu ci la ñuy ñëw tuuti maanaam dinga xaar bi duñu wax tudd sa âge mais âge boobu nga xam ne moom la say waajur waxoon bi mu jotee ci lañ la nag am nga droit léegi dugg ci ci mbir mi. dëgg la. Hmm. samay maam waaw. Hmm. ñoo ma ko wax ndax dañ ma ne looy dugg. Hmm. bu at bi jotee ci yow loo laal bu soobee yàlla moo gën loo laalul. Oh. waaw. lu sëñ Fallou waxoon sëñ Abdou Karim. dëgg la man samay maam wax nañ ma ko ndax léeg dañ may feeñu nekk nit ñu weex taal. waaw mhm. ah, di ma wax nag lu dul deñ may sant yàlla rek ñun ci sant rek la ñuy dox ndax dañ di ay taalibe yu xeebu. d'accord ok mës nga it nii di dem ci benn barab boo xam ni bi nga demee ba jub buntu kër gi am na ci loo xam ni dañ ko def ci biir say affaire wan la ko nga ñëw ba ci buntu bi say tànk bañ ma bëggoon nga ñëw ci tuuti. waaw <laughs> waaw dama doon dañ dama doon tukki. Mhm. di voyager. Mhm. mais yoon bi ni mu demee ndekete ka ñuy fekki affaire wujju la. Mhm. moom dane ñiy ñëw dinañ ñëw mais buñ ñëwee néew la ñu indaale seen seen néew la indi. maanaam lu ñu indi bakkan. te loolu confirme parce que man balaa may dem ci yoon dama koy xool génneelu ay sarax. ñi war a ànd yëpp ku nekk ak sa sarax. waaye nag ndekete ñeneen ñi defuñu seen sarax. Mhm. waaw oto bi daal di accidenté trois fois. mais lépp mbir yàlla suñu borom yàlla rek moo yor ay bakkan yàlla moo yor ay jaamam dëgg la mais booba bagage ci yëf yi ci mbooloo mi waaw boobu bagage ci mbooloo mi uh-huh. parce que bagage yi ci kaw tali bi sax laa ko mujj teg mhm. def samay affaire yi maam génnee samay béjjën mhm. waaw daal di def. Mhm. sunu borom dimbali ñu. Mhm. ci mbaaxam. Mhm. mais bu ñëwee ba dugg ci biir kër gi ñëpp dugg teg seeni bagage man mënu maa dem mel ni dañ ma acier bu ma téyee. Hmm, nga xam ne rawaan am na. tànk yi bañu de dañ ma doon wax fi nga taxaw am na lu fi ne te nekkate fi ñu tënk foofu la la fa nekk lañu la ñu tëye woon ci yoon bi ñu war a yegg ci dëkk 3 heures du matin yegg fa 7 heures du matin ci loo xamante ne distance bi soriwul. 3 heures du matin yegg fa 7 heures lañ fa yegg 7 heures et ci def li li li mu def bi mu ko defee ba mu ñu séenee ñuy ñëw si ndox la yore dafa tiit ba tuur ko léegi nag ñu ne ma yegsil ma ne ma ne leen fii dafa am lu fi nekk ñooñu nag daadi di da di kilifa nag yónnee ay ay taalibeem ne leen indil ma peel mm-hmm. bi ñu indee peel bi ñu gasee bi ñu sulee fekk nañ fa ginaar bu doon dund ñu tëj ko ci siwo zadida yi waaw ak ay béjjën ay fiil loo xalaat ci lu ñaawteef ak mbon rek def nañ ko ci biir siwo bi man nag nit nag defe naa ne danga war a ragal yàlla mhm. xaalis bu mu la jaral ngay sànq doomu aadama wala ngay nga nga nga koy faat boobu bi ñu ubbee affaire yi loolu lañ fa fekk bi ñu ko ubbee foofu lañ ko fekk def doon nañ ko ay vidéo def ko ay photo waxantuuma ndax ki mu ki ko ki euh, fi mu fi mu xewee kër kilifa la kilifa gu mag dëgg la yorul taalibe yu bari mm. waaw d' accord aywa loolu rek c' est à am na sax yeneen ak yeneen yoo xam ni wax di yàlla nekk na ci moom. Mm. donc nag moo tax euh, yow mi seetaan vidéo boo ko teewloo tuuti rek di nga xam ni yàlla maye na xam-xam alors di ñëw ci gàttal tuuti ci say faj euh, ci wàllu côté Jalang ci côté Fajul ci say euh, mbokk yoo xam ni foofu wax nañ ñi ne maanaam mbir mi def gis la tudd. waaw. Mm-hmm. waaw def gis la tudd ci ñu ciy sant yàlla rek. Mm-hmm. waaw parce que ay ñaanam day joxe àpp de moom àpp la lay jox àpp. def gis la tudd ñu ci sant yàlla ci ñun ci jëflante jëflanteel ñëpp alhamdulilah sant nañ yàlla bu wér waaw di la wax ne jalang nag moom dafa nekk loo xamante ni nii. Mm-hmm. mooy vite fait. mooy vite fait maanaam jooni jooni. sëriñ ñu bari ñu ngi koy wax te xamuñu luy vite fait. Ah. waaw jalang moom mooy vite fait mooy jooni jooni. ndegam neex na yàlla. maanaam ay mbir la yoo xam ne du ay garab yooyu teg nii déedéet. déedéet déedéet. ah ok. moo xamante ni dalay wax lu leer waaw day wax yow comme ni may wax yow noonu lay wax ak man. maanaam ku ne ci problème. waaw wala mu ne ci xat-xat problème nga ñu war laa tëj kaso. Mm-hmm. wala ñu tëj la ba pare. Mm-hmm. waaw wala nga bëgg doom amoo doom. Mm-hmm. wala nga bëgg jëkkër. problème yi jamono yi daal li muy réglé bari na torop moom ngeen yor. macha allah moom la ñu yor. ci côté jalang yi. waaw ci côté jalang yi ñu bari nag Sénégal xamuñu jalang boo ko waxee dina jaaxal ñu bari waaye sant nañ ci yàlla bu baax a baax a baax ak mbirum xëccoo bu dee mbirum xëccoo la mbirum président yeeg yooyu. Mhm. waa suñu borom dimbali nañu ci. waaw ci wàllum samp. maanaam jalang daal maanaam koo xam ne la. yaa ngi yóotu dara daal. mbër yu mag yi mu wala ñu lay am nañ jalang mbër yu mag yi ndax moom la ñuy sampee mbër ku ñu samp ku ne ci jalan lañ la samp de waaw waaw ñi ko ñi ko xam bari na waaye mais nag bari na ñu ko xamul. d'accord ok léegi ci faj moomu la ñuy ñëw ci côté app bi rek ñu ñu daal di ñëw ci wàllum seet bi tëj émission bi. Mm. mooy euh, wàllum faju njurum doom parce que tëj na réew mi. Eh, jigéen ñu bari taxaw nañ wala soit ñii dañuy am benn doom taxaw wala mu ne la dama lay bàyyi ba nga dugg ci biir néegu sooy waaye tey doo fi am doom wala nga ëmb ba am ñaari weer mu mu mu mu tuur ko mais ci biir euh, avant ñuy ñëw ci yow am nañ ci ay information que ni yow say faju njurum doom dangay joxe ab waaw damay joxe ab ci kaw nga ngay sellal ah, bañam ah. di jubal ndax jigéen sonn na di wut doom fekk na te na leneen lu ci rax. lu mu nekkee ci suuf. maanaam di mooy sa jëkkër. jigéen buy mooy jëkkëram. laa am na ñoo xamante ni seen rawaan du leen sonal du leen indi benn problème mais da leen di tëj. fi doom war a sosoo du fa sosoo. kon nañ leen bàyyi xel bu baax ci mooy gi. ndax hmm. adduna bi moom xaw naa yàqu. Hmm. waaw jàll kii bi liggéey bi moom dañ lay appal. mbirum hmm. doom bi. incha allahu rabbi sëgëm neex na yàlla. waaw bu nekkee wàllum rawaan la. ah ko neexal. Ah, def ko ku ndax ku la ne rawaan mun naa koo dindi ba mu set becc xamul lu muy wax ah xamul lu muy wax de rawaan kay danga koy neexal puus ko mm-hmm. mu may la jàmm ah, ma kenn du ko dindi ci nit ba mu jeex amut da ngay dee sax subitement rek nga ko ci nit déedéet nit kay danga koy neexal xanaa boo juree sa doom sax danga koy neeng neengal di ko yar di ko neexal dëgg la ba di ko jàngal ah, jikko yu baax yi mm-hmm. ndax gis nañ fi eh, rawaan mm-hmm. yoo xamante ni duñu jullit am na yoo xamante ni dañuy tuub Mm-hmm. loolu yëpp ci ci liggéey bi la bokk. Mm-hmm. waaye sëgëm neex na yàlla ak yonent bi ci kàttanu yàlla boo jëflanteeg ñun. waaw mm-hmm. ah, am na ñoo xamante ni nag feebar la. na yoo xamante ni feebar la ci doomu aadama. am na yoo xamante ni def-def la. ndax da ngay sëy ci kër ñu xool ba sàppali la ne la doo fi juree. dëj la. dëj la. ok ne doo fi jur doom du fi juddoo. te loolu yëpp ay liggéey yu ñu def la yëpp ay liggéey yu def la. suwaat sa yére la jël am luñ ci def wala sa sër. moo tax jigéen ñi daal nañuy vigilant bàyyi sàggan. Ah, mais yow mais mais ku mel ni Soxna Ndeye day xool ba xam ni lan la su dee liggéey la wala rawaan comme li ngay wax. nii waaw lu mu ci mën a doon rek dama la koy wax. mais faj bi daal doy doon àpp moom. waaw faj bi moom dana doon àpp ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. bëri na si ñu bëri ñoo xam ne ay dar nga leen jox ñoom dat maanaam dar sàngam ci ngay jur yow dat atum nangam ci ngay jur yow weerum sàngam ci ngay jur. dëgg la bari na ci ñu bari mais ma di wax ay tur. dëgg la tey ji bu ma woote woon kër gi dina fees dell hmm. ndax ñiy wax dinañ wax te li ma li ma li may li li ba ma dalee liggéey ba tey mu ngi mu ngi bëgg a yàgg de dëgg la waaw kon kon app bi ci hmm. jurum doom bi ak app bi ci wàllum sëy bi hmm. nga lay wax weer sàngam wax la dat maanaam tey koo xam ne mënul fexe ba am borom kër maanaam oh loolu jéem na de mu seet la da nga koy jox dat at sàngam ci nga war a am borom kër waaw dama lay jox dat dama lay jox dat am na foo xamante ni bu ma fa taxawee bu ma fi tolloo bu ñu bu ñu jàkkaarloowee ci mbirum téléphone wala ñu jàkkaarloo nii rek dama naan la carrément weer sangam mois de juillet lañ lay takk wala décembre la premier doo ko génn wala la cinq. njurum doom bëri na ci ay turandoo donc mais ci ci gàttal tuuti rek dugg ci seet bi tëj émission bi ñëw ci ñaari càngat yeeg jaaro bi. Mm. mës nga dugg sax doo tudd ba tur ba tey ci ñàkk bañ a tudd tur bi am na ci barab yoo xam ni dem nga fa fekk nit feebar ñu koy va et alors que ndekete li ko dal ñu ko jege lool. Amara day taali ma bañ a tudd tur. Mm. da nga ñëw rek ne su ngeen ko bàyyee mu jóg. laa ilaaha la bu ngeen ko bàyyee mu jóg jox ko ay ay sangat ak digal ko ay sarax surtout sarax yi. Mm-hmm. surtout sarax yi dama ko koo digal mu daal di jóg. Mm-hmm. waaw mais kenn mënul nag yàlla rek a mën. xale laa duma xale mag laa duma mag waaye yal na yàlla def jàmm. da nga ñëw wax leen lii. waaw boobu boobu daf ma fekkoon ci yeneen xaal xam nga ñun rek yaa ma gën a xam. am lu waaw day yéeg de moom la gis loo xamante ne kenn du ko gis waaye nag loolu bu amee da ngay delluwaat sant yàlla rek ndax mënoon naa cee dugal sama loxo te du wér d' accord bëri na feebar yu bëri yoo xamante ne si da koy faj moom parce que li duuf ci nag bi xaju ci ci li mais ci côté jalan daal pour ñu résumer ñi am problème yoon wala ñi nga xam ne mu ñu ñoo am doom wala nga nekk ci xat-xat wala coowu tribunal wala nga bëgg samp sampu yaa xam ngay futbal wala ngay bëre wala nga nangam foofa soo fa yeggee ci Joal incha allah bi moom bu fa yeggee yow dina lijjanti say mbir léegi nag dañuy ñëw ci fa avancé yi euh, ñaari càngat yi lan la parce que nag. dañ daan dégg nga naan càngat dëgg soo ko jëlee juróom-ñaari fan war ngaa gis résultat. ñetti fan yow gëmoo kuy sangu ay sang di dem jëmale suba de. déedéet di sangatu rek ba ilaa yomi din te doo gis benn résultat danga koy teg nee naa la ñun wàllum vite fait la ci la ñuy dox. jooni jooni. jooni jooni kenn mënul yàlla rek a mën waaw dafa am ñoo xamante ne seen rawaan du laal alxuraan. Mm-hmm. bien vrai que ay jullit lañu. Mm. alxuraan baax na trop mais am na ñoo xamante ne boo leen ko defarale seen mbir day yéex. day yéex du gaaw. d'accord maanaam si wàllum ubbeeku. wala yàqu-yàqu. Mm-hmm. wala nit koo xamante ne daal amatul eh, espoir ci dara. ci dara lum laal mu dëgër. waaw ok. ma maanaam alxuraan la moo nekk si jamono moom la yàlla wàccee. moom mm. la ñuy def. Mm-hmm. waaye am na ñoo xamante ne nag sunguf. sunguf. waaw parce que mais dañuy wax ni bii day jàpp mu yàgg bàyyi bii bu jàppee du bàyyi. non non alxuraan du jàpp di bàyyi de. ok dina yéex nag. comme maanaam bomb bomb bu yéex a déclenché wu la. Mhm. ndax li li ñuy wut bu waree am euh, euh, deux mille vingt ñu mu dem ba deux mille vingt cinq doogoo déclenché wu li nga doo wut nga doog ko gis. Mhm. kon yéex na. dëgg la. waaw mais nag bu dee wàllu sunguf la. Mhm. bu dee def-def la wala wàllum rawaan yi. Mm-hmm. wala umte maa nitu guddi mm-hmm. yooyu yëpp moom bu ñu bu soobee nabi Moustapha bu ñu jëlee alxuraan boole ko sunguf mm-hmm. sunguf mooy cosaan li fi maam bàyyi woon waaw muy wàllum vite fait ñu liggéey ko nag lépp ci wàllum jalañ yeeg yooyu incha allahu rabbi résultat vite fait trois jours mooy gis d' accord gëmoo kuy jël ay cangat di jëmale sangu rek jëmale suba non nee nga càngat ñetti fan normalement nit ki war na am résultat ñetti fan xanaa xanaa nga gis sa bopp Oh, nëbb ma. ah te bu ma xoolee dinaa xam ne xel ni ça va très bien. ok bu daf ci bari am na ñoo xamante ne da nga leen di defaral. Mhm. ba seen lépp sotti. Mhm. ñu ñu ñu lay nëbbatu. dëgg la waaye ki la ci néeg bu lëndam mhm. mbaa ki la jiitu ci néeg bu lëndam moo lay wax fa ngay toogee moo la wax fa ngay toogee waaw moom daal nee na gëmul càngat nit ki jël ko ak xat-xat boo mënti nekk moo xam papier ak lu mënti doon seede yàlla waroo ko jël te gisoo résultat bu baaxee su jaaree yoon alors dañuy ñëw nag ci jaaro yi parce que nag am na ñoo xam ne lu ñu am mu dem mais dañ la gis nga liggéey ay jaaro yoo xam ne bii yaa ngi def paire bu bleu bii verte bii marron am na ci boo xam ne sax defoo ci dara mooy jaaro yi nga teg lan mooy njëriñam. dëgg la jaaro yi de pour borom loxo yi nga xamante alal ju ñu tëye mu dem. Mm-hmm. waaw am ñoo xamante mm-hmm. euh, yàqu-yàqu tamit dañuy am coono àdduna. seen loxo day bënn. moom macha allah foqet lay def. waaw kenn du foqati say mbir ndax nit romb na nit nuyu ko rek. Mhm. foqati wërsëgam. loxo bënn mel ni mboose rek mënoo téye dara bu yor 500000 balaa ngoon a jot nga àbbu 100 francs. dëgg la de. dëgg la dëgg la mhm. loolu yëpp dafay am. mais mhm. dafa am ñoo xamante nii. dañ naa rawaan na leen koy def. am na ñoo xamante ni nag ay doomu aadama lañ bu buñ la joxee loxo rek. Mm-hmm. bu soobee yàlla yow loo yoroon dana seey. Mm-hmm. yàqu-yàqu muy nekk si nit la. ok waaw. mais daal jaaro bi bu ko nit ki takkee. jaaro bi moom 7 jours war na gis résultat. waaw waaw waaw waaw incha allahu rabi da ngeen di daw. Mm-hmm. ñëw xool si ko. ndaxte jaaro bari na torop tubute. waaw loolu laa waa ci loolu laa bëggoon ñëw ak yow. parce que ñiy tudd jaaro dafa bari. amul kuy waxtaane lu doon ma sama jaaro bi sama nàngam mais wax dëgg yàlla kuy wax euh, côté Jalang wala seen côté ñu naan euh, maamam mooy Aline Sitoé mm. jaaro yi du ay jaaro caaxaan ay kilifa yu mag ñoo koy liggéey. waaw ay kilifa yu mag ñoo ko ñoo ñoo koy daw sax di ko fi wut si fii. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. jaaro yi daal du du ay caaxaan te tëbuma tëb wut ay jaaro. ndax euh, app bi sax balaa muy jot. Mm-hmm. jaaro yi. boole na bokk na sama liggéey. waaw. ndax loo xam lépp dañ la koy jox luñ la joxul rek amoo droit laal ko. dëgg la waaw. ok ñun daal noonu nañuy doxee. d'accord jaaro yaa ngi nii daal ku ku ci bëgg xam dara. dëgg la na nga ci def ay commande ok waaw ñu ñu ñu liggéeyal la rek. ngeen xool nga xool incha allah ok léegi bala ñuy tëj ci côté ñaan gi. ci côté seetlu euh, maanaam wax nga ni da ngay seetee ndox petaaw ak suuf. mais avant loolu lu tax léegi mu bari. parce que yow bu ñu xoolee da ngaa wax ndono gi ba pare jox la âge. na la âge ah, sàngam boo ko amee war ngaa mën a dugg ci faj lan moo tax léegi mu bari kon parce que nag ñu koy def léegi dafa bari te dafa mel ni affaire bi ku xool yéen si seen koso cosaan yëf yi du caaxaan ah ku ko caaxaane de caaxaane nga lu rëy caaxaane ngay sa bopp hmm. yëf yi du caaxaan de tey du ay fo ndax ah, li la li la say maam di jox ak li nga jàng du benn ah, boo ko loo ko jàng jàng jàng day des ok mais say maam luñ la mën a jox chaque jour saa boo tëddee guddi dina am luñ la wax. ndax ñoom mm. ñoo la ko jox ñoo la samp bëgg nga liggéey. Ah, bari gi mu bari nag dafa am ñoo xamante ni dañ ciy boole loo xamante ni bokku ci. waaw waaw. di leen wax ni la nag. du caaxaan de rawaan du caaxaan. te dañ lay dégg sax nga naan boo koy fawee balaa at may dellu si sa bopp yow. dëgg la di nga gisal sa bopp man gis naa ci ñu bari ñoo xamante nii dañ ko doon def mais dañu mujj tëdd mujj fu ñu mujjee neexul. seeni moom fii rek parcelle gi am na fi koo xamante nii lii la doon def pourtant làkkat la de la wax de waaye biñ ko jàppee dañ koo jàpp nag maa ko faj moo ngi fii bu seetaanee vidéo bi dina xam ni li may wax dëgg la inventé wu ma ko te oh. sëriñ la tax dañ koy rang mu ngi fii ci quartier bi ñu koy rang affaire bi jàpp ko laa ay nit a ko jàpp laa ilaha illallah mu feebar ba sonn bi muy dugg ci fii da doon raam dama bañ ba su ajuma la waxoo ma ne ko duma la laal. Sëriñ kër Si oh mu lenn la lii daal ña cay ne bàyyi leen parce que dañ la dégg naan kuy caaxaanee seeg leen di seetaan rek ngeen xool. dëgg la fa muy mujj. d' accord moo tax euh, lii dafa am boroom soo ko moomul bàyyil. dafa am borom boo ko moomul bàyyil ndax du peetaaw yi kese xolitu gerte sax dama ciy seet di la wax lu dul deñ xolitu gerte yi nañ leen bàyyi caaxaan te liggéey. dégg nañ la nga ne ci cas urgent. am na fu may fekk dëgg-dëgg sama téléphone lay taal. am na fu may dugg lu ma la ci wax du dañ. lu ma la ci wax du dañ du ma laal petaaw du ma laal ndox su ma neexee. waaw parce que dafa am may wax. liiruma petaaw yi dafa am lu wax comme par exemple yow mii di wax ak man mii. Hmm. waaw dañ naan ma nangam bii ak nangam. laa nga tiim ñu lay wax ji moom nii. <laughs> waaw waaw lu dul dañ lu dul dañ. mais lan moo tax ñu naan euh, ci ginnaaw seet gi euh, sa sarax dafa du la. maanaam say sarax dafa yéeme say sarax moom macha allah koo ko génnaloo du def ñeent fan wala juróom-ñaari fan du gis te te mu gis résultat. dëgg la loolu moom yàlla moom sama for moom ci ay sarax la nekk. lan mooy njëriñam bu may jëflanteeg yow sax duma la fayoo ko sarax yi rek ngay génnee ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ma appal la jox la date bu jotee te fayoo ma tamit nag dañ ko jëflanteek man ndax man fi dama lay fekk niveau un yóbbu la ba diis lan te dama koy xam. maanaam fayekuloo kenn ci faj mi ngi tudd yëpp faj mi du ma ci kenn ndax samay maam sant ñu ma ko. sarax rek ngay laaj mi di laaj moom dañ koy joxe. mu ñu joxee sarax yi ñu daal di jëflanteeg yow sunu borom may ñu ci ndam bari dañu ma faj fii te laajuma leen benn dërëm. moom kay c'est la première fois nga dégg ku ne dama lay faj ba nga am doom nga som mais xam lu ma jaaxal maanaam sarax yi avant ngay ñaanal waa réew mi ñu ñaanal ci jàmm ak salaam euh, nit tax des fois comme li nga wax nit ki nga wax ko dara su koy négliger ci lay gën a am problème tant que deful sarax bi du am jàmm. waa des fois ngay nga nga nit woola hmm. wala nit ñëw ci yow. nga seetal ko mu xam ne li nga ko seetal téere la nga ne ko nangam bi la ñuy def sarax yi mu koy def nii bu demee. Euh, cinq jours problème bi day gën a aggravé te bu boobaa sarax yi day gën a yokk ah day yokk waaw ndax li ngay bañ hmm. fi nga xamante ni moom nga mujjee njëkkee ko rek suñ borom defal la jàmm nga am jàmm ki lay liggéeyal am jàmm mais da Sénégalais toujours dernier moment dañuy bàyyi bu mbir yi gën a metti gën a takkarnaas ñëw toog di jooy d' accord jërëjëf lan ngay ñaanal waa réew mi parce que nag li ne ci moom dafa bari am na ci feebar yu bari yoo xam ne mi ngi ci soxna Ndeye mi ngi nekk Parcelles Assainies unité 20 ginnaawu boulangerie Mandela. ñu ñëw ci beneen point ku jur euh, nekk ci dara ba jur ci doom sa doom tey di la ci aw muy côté Gaston Mbengue ci Makan ku jur Modou mbay nekkoon ci Bantamba tey bëri na ci mbër yu bëri yoo xam ne fi ñu toll tey El Hadj mbay moo tax ñu toll fa. Euh, du ñu lim bëri na ci ay mbër yoo xam ne tamit fi ñu toll tey Gaston Mbengue ñoo tax ñu toll fa ku dem sa ba am sa makaanu bopp bokk na ci ñoom ñaar ñu tax ñu am ko mais fan yi dañu gis ni malentendu am na. Hmm. soit dañu jàpp ni Bakay da doon defar Gaston ni maa moom sama yëf. naa fekk waru cee am am ay wax yu ci jublu te ay kilifa je pense que xaw nañ foofu yow en tant que seen rak seen doom lan nga ciy wax. waaw rafetul. Mhm. ndax loo xamante ni ndaw ñi la la moo leen looloo leen waroon a arrivé maanaam xale yi mbër yi. Mhm. wala ñoom seen doom yi ndax ku ci nekk am nga doom joo xamante ne bu solee sa daal mu jot la. dëgg la. Ah, loolu rafetul. Mhm. ñoom ñu ñoom ñoo waroon a yor seen puso di ñaw. waaw. ba tax na Bécaye hmm. liggéey na ci làmb loo xamante ni histoire làmb ci la bokk kenn du tudd làmb te tuddoo Bécaye dëgg la Gaston tamit pareil hmm. ndax ku yëkkati ay millions di ko def ci làmb hmm. kooku liggéey na ci làmb dëgg la ñu leen di wax ni nañ leen rafetal soow mi rek ñu duggee ko marché te nous dans ñoom liggéey bi ñoom ñoo ko bokk kenn mënul dem bàyyi sa morom nañu jàppante te yàlla rek tax nañu jàppante te yàlla rek tax adduna bi jeex na ba pare te ñi leen yaakaar dafa bari mhm. ñu xool seen doom yi xool seen rakk yi ñoom ay kilifa lañu mhm. ay kilifa lañu am na yoo xamante nii rafetul seen diggante mhm. waaw nañu bàyyi wax wax baaxul coow baaxul jërëjëf ci côté TikTok bi dañoo euh, hmm. dañuy dañuy faral di wax rek daal di branché ci côté TikTok bi mais bi ñuy waxtaanee ak yow da nga ñuy wax ne ñu yemul sax ci TikTok bi rek déedéet. Mhm. TikTok bi bari na ay ñuy dem mais nekkul ñëpp la ñuy yóbbu ci TikTok bi. Mhm. waaw maay nag ba ci xale yi def série yi. Mhm. série yi petite série yi. parce que léegi da ngay seetaan ay série yoo xamante ni ay semis de nuit lañ ciy solak. te li ma gis dëkk bi dafa lëndëm de. jinne ji ñëpp lay fàdd ay ndaw lañ te ay jeunes lañ nañu moytu te defaru ndax tele du caaxaan. nañu moytu bu baax a baax a baax defaru bu baax. tiktok bi siiw du jàmmi borom. siiw du jàmmi borom tiktok bi doy na waar. estati ku ko mën a wàññi na ko wàññi. Mhm. waaw estati daal ku ko mun a wàññi wàññi ko tiktok bi ngeen moytu. te dafa mel ni ba léegi su ngeen di wax taxul ñu déglu leen. ba eh, léegi gis xale bu sañca taal téléphone am def vidéo. jinne yi ñoo leen xabtal. Mhm. dañ leen a xabtal nee naa la dañoo jóge ci fañ dëkkoon ñëw fekk ci nit ñi ci seen dëkkuwaay yi. léegi da gis nit di def dara nga mu leer na la ni lii muy def nekkul moom dafa am leneen lu koy defloo loo façon ba ci sol ñii ñoom ñoo lay conditionné di la solo sol yu doy waar ci gis lu doy waar loo xam ne gis naa ci lu doy waar te nañu moytu nañu moytu bu baax a baax muy góor nag di jigéen nañu moytu ndax euh, doy na waar daal. ci loolu jaaree nga fa bala ngay tëj nii gis nañ ñoo xam ne seen doom yi dañu leen tëb bitim réew moo xam fii seen doom yi dañuy dem rek ci côté dot am na loo ñu waxoon quoi. waaw pour sa doom toog. waaw téye pour sa doom toog mais nee naa du ñëpp la ñuy doot. Ah, lu tax. waaw dafa am ñoo xamante ni muy góor sax di jigéen jigéen boo ko dootee. am na hmm. ñoo xamante ni seen rawaan bugg ko boo leen dootee. Hmm. du ñu am jëkkër. dañuy màgg tamit di wëri jiwaat keneen ku leen dindil doot boobu di ay sanga te dott day jékki-jékki réer. Hmm, waaw ndax dootu am na ñoo xamante ne dafa am fu ñu koy def jox ko sa waajur ne la denc ko toxu toxu yi da nga jékki-jékki fañ la defoon dem na yoonam di. lu ciy pexe. waaw li ciy pexe mooy ñu def ci ay ñaan. am na ñoo pexe nga ci am yow yow ci sa côté. parce que ay rawaan moo leen koy defloo. ok te googu nee naa la aduna bi dafa doy waar. aduna bi dafa lëndëm. Mhm. ku yebu rek di sàmm sa njaboot. Mhm. fagar moo gën faju jërëjëf waaw. jërëjëf nit buy wut ay sangat ci boppam na ut ay ay sangat pour ay njabootam. mais ki sa doom daal di jàpp yoon bi tux tux mu bu léegi nii rek maak ñii bi ñuy ñëw esaat xale bu am 10 ans dañ ko seen muy 15. waaw mais ñi nga xam ni kon dañuy màndi di 15 wala di topp yoon wi di bon am nga ci ay pexe. waaw am nañ ci ay pexe bu soobee yàlla bu ñu setsee rek. Uh-huh. dina am loo xamante ni man ñi nga xamante ni dañuy jël bitel bi sax. Mm-hmm. am na loo xamante ni dañ koy booleeg meew rek incha allah rabi dinañ tàggaloo ak moom tàggale koog moom. waaw jërëjëf am na yoo xam ne def def la. Uh-huh. am na yoo xam ne rawaan la. Mm. mais am na yoo xamante ni nag tayef la. tanaaf su bakkan bu bon rek. waaw. loolu daf ci am. jërëjëf mu nekkoon soxna Ndeye Bébé fii ci Parcelles yi comme ni ñu ko waxee sànq ci annonce bi. Mm. wax dëgg yàlla nit la koo xam ni euh, xam nañ ko bu yàgg sax ci ay mbiru bëri na lu ñu daan dem ci région yi booba feeñ amul euh, musu ko nangu xëy na âge bi bi mu ci tollee nangul nañu ko pour ñu ñëw seet mm. numéro yi mooy affiché ci bas d'écran bi mi ngi Parcelles Assainies unité 20 ginnaaw boulangerie Mandela jëre ngeen jëf.